mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV yi yi na ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ngeen mën a ne di ànd ak seen télévision la 2STV yi waaye di ànd ak seen rajo origine FM 88 point 4 dellusiwaat nañu ak yéen seen jotaayu daara jii ñu tudde tafsirul quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ñu leen di nuyuwaat nag bu baax di leen ziyaarawaat bu baax di seet nu ngeen def di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm defal ñu ko may leen wér may ñu ko. def ñu dëgg-dëgg jullit sàmmal ñu suñu imaan téyel ñu ko ba mu bañ a yàqu dara bañ cee dugg ba buñ ko ko yóbbulee ci présentation bi rek mu kontaan ci moom suñu borom yéen wax ne namoon ngeen ñu waaye namoon nañ leen de waaye li may wax rek du suñu jëmm yi ngeen namm déedéet waaye alquran rek ngeen namm doon télé boobu ba léegi sax yéen ngi doon am ay rediffusion yu leen doon wéttali macha allahu waaye ñu toll nag ci war di yeggale nag kaamil bi ndànk-ndànk rek nag ndànk-ndànk macha allahu ci noonu tey ñu ndi leen euh, semaine bii dañ leen di indil spécial suratul ixlaas spécial suratul ixlaas muy saar boo xamante ni day guddul guddul de waaye li ci nekk moo bari waxoon naa leen ni ñaare saar boo dégg ci alquran ni ñu tudde saar bi da dégg baat boobu ci biir saar bi lu ma jublu ci loolu mooy boo nee suratu naas da nga naan qul audu bi rabbi naas boo nee suratul falaq qul audu bi rabbil falaq suratul masad xablun min masad suratul nasr ida jaa ida jaa nasrullah suratul kaafiruuna qul yaa lil kaafiruun suratul kawthar inna ataynaaka al kawthar surtout almaaun wa yamnauna almaaun surtout quraysh li ilaafi quraysh surtout alfiil alam tara kayfa faala rabuka bi ashaabi alfiil humaza waylun li kulli humazatin lumaza surtout alasr mu dooree wal asr surtout takaasur mun la alhaakum wala surtout alhaakum mu indil la alhaakum takaasur boo ci jël demal surtout alqaaria alqaaria wala aadiyaat yi gis nga li ngay dégg ci saar bi ñu tuddee ko ko danga koy gis souvent ci biir saar bi waaye boo ñëwee ci saar bi li suutul ixlaas day mel ni li ngay dégg suutul faatiha te ci biir saar bi doo ci dégg baatu faatiha suutul ixlaas it soo déggee baat bi al ixlaas la tudd waaye baat boobu doo ko dégg ci biir saar bi maanaam loon mooy doo ko ci dégg mooy ci li nopp di dégg doo ci dégg al ixlaas waaye ci am ku am dégg dina xam ne saar bi mooy suuratul ixlaas am ah, mbokk yi li ma wax mel na ni lu lëj de waaye lëjul de dama ni saar bi mooy suuratul ixlaas moom ngeen di dégg ndeysaan ci xew-xew yi ñaan nañ def faatiha def ñeent fukki lixlaas ak benn wala def ñaar fukki lixlaas wala def fukki lixlaas ak benn fukki lixlaas ak juróom nañ def ñetti lixlaas ñaanal ko way dawlu yi wala nga dégg ko sax ci ñaani nañ def fatiha ayatul kursi yu alam nashrah lixlaas mu daal bari na lool lu ko jullit di jëfandikoo kon miin nañ ko ngay dégg sax ñu naan suuratul ixlaas leeralaat ko nii mooy qul waaw pour ñu xam ko buñ ci paree looy dégg ñu teg ko ci souvent ngay dégg ñu naan yii bu ci nekk nag na ànd ak bismillahi rahmaani rahim kon suratul ixlaas ango cent douzième surat ci saaru màkke yi la aayam yi bariwul ndax ñeenti aaya la am moom saar bi saar bi nag dina wane melokaanu suñu borom yi subhaanahu wa yu mag yi wane yi suñu borom yu tedd yi maanaam ni mu tedd ci ay melokaanam moom borom bi wane ni nag loolu luy sax la wane it ni macha allah moo gën a woomal ci ku dul moom soxlawul kenn te ñëpp ko soxla moom borom bi amul benn manquement moom borom bi saar bi dina ci ñëw dina la wanit ni macha allah ah yàlla kenn waru koo boole kenn de ndax bokkul ak kenn yàlla bokkul ak kenn kon kenn waru koo boole kenn ndax kenn ku ne am nga famille boo bokk am ñu ñu lay ràññee waaye yàlla nag bokkul ci benn famille loolu saar bi dina ko leeral macha allah walla ni kon waroo ko dendale kenn. waaw loolu wàcc ci ñi nga xam ni dañ doon wéet dañ doon wane ni yàlla mu ngi fi waaye am na yeneen yàlla saar bi dina leeral ni loolu mënta am yàlla mënul am beneen yàlla buy nekk ci wetam moom borom subhaana moom rek mooy yàlla te beneen yàlla dootul amaat loolu yëpp saar bi dina ci dikk ba léegi rek ndax saaru tey bi dañu boole war a def tafsiru suura waaye indi ngëneelu saar bi suñu kéemtalaayu lu ñu ci man rek dinañ leen ko ci indil ngeen solo ak tolluwaayu saar bi di suratul ixlaas mu ni ci saaru màkk yi la mu ni wa hiya min aazami suwaril quraan bokk na ci saar yi gën a màgg ci saari alquran yi ndax mooy carte d'identité bi suñu borom subhanahu wa nañ ci indi lu tax ñu tudde ko noonu ndax mooy wane melokaanu borom bi subhanahu wa tudde nañ kooko nag di suratul ixlaas ndax moom dafa sellu lool saar bii ci melal borom bi subhanahu wa wéetit ci melal ko moom dong nag te sellal dafa am solo waxat ba daan wax naan axlis amalaka yakfika fii qalil nee na quantité bi boo ci ndaree sonn te du ànd ak qualité wàññil quantité bi ba pare am qualité mu solo moo tax mun la ni sellalal sa jëf loo jëf lu mu tuuti tuuti rek mën na la jëriñ gis nga borom bi subhanahu wa dafa bëgg lool loolu ci jaam bi buy def na sellal li muy jëf jëfin bu baax a baax moo tax saar bi dafa ñëw di indi sellug borom bi subhanahu wa di indi wéetal gi ñu ko war a wéetal ci at tawxid wane ni moom dong moo fi ne muy tawxidul xaalis lillahi azza wa jalla loolu it day dimbali nit ki di ko musalit di ko muccal ci bokkaale yàlla ak safara ndax kat bokkaale yàlla moom ku ko bàyyiwul da ngay dem safara ndax la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takun min alxaasirin te ku perte mooy kuy dem safara yowm kon saar bi da dimbali ci ndeysaan suratul ixlaas mbokk yi mu ne azza lisaan qaraaha wa nee na làmmiñ boo xam ne day mu ngi koy jàng ak di ko tari fu mu toll nee na làmmiñ boobu de màgg na waaw làmmiñ boobu de màgg na ndax làmmiñ ak gémmiñ dafa mën a dimbali nit ki ci dugg àjjana waaye mën na la jural dugg safara yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ba mu naan ku ma sàmmal sa pay ba njaaloo woo sàmmal ma sa làmmiñ ba waxoo loo warta wax ma garantil la àjjana Muaz ibnu Jabal saxaabi bu jàmbaare boobu ni ko waaw sànq bi ñun suñu làmmiñ yi liñ ciy wax rek mën nañu indi problème mu ne ko yow xanaa lu xew bari na ku ñu dëpp kanamam gi safara te mboobitu làmmiñam moo ko yóbbee maanaam wax rek wax rek tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba mbokk ma ñëwee ni ko man de dama bëggoon nga digal ma loo xam ni su ma ko defee mu yombalal ma àjjana ëllëg mu ne ko fexeel ba sa gémmiñ gi bu mu deñ mukk ci di tooy ci tudd yàlla rattaban bi zikrillah sa gémmiñ saa yoo saa su ne nay tooy ci di tudd yàlla loolu nag dafa am lu garaaw lu muy wane loolu nag ña ngeen yeeg jaañeen yéeg faalin yéeg ñooñu ñoom ndey ndeysaan boo leen koy wax sax duñ ko comprendre ndax yenn saa yi nga wax ak benn ngayeen ah acca ñu lekk waaye acca acca acca ci ginaar gi acca mun la waaye man tur yàlla lay dunde loolu nag boo ko waxee Abdou Khadir Diagne wala nga wax ko Pape Matar groupe boobu ñoom dañu naan moom kii day wax rek nan la ñuy dundee turu yàlla <laughs> wallaay di nga gis mag ñi dañ daan yor azkaar di tudd yàlla ala bi zikrillahi tatma innul qulub di tudd seen borom ba yëg ni bu ñuy géex sax duñu ko tey allahu akbar yëg ni seen biir fees na dell mu ni kon làmmiñ boo xam ni day deñul di di jàng alquran di jàng suratul ixlaas di ko tari saa su ne làmmiñ boobu day màgg na mu ni waaye xol boo xamante ne de fu mu toll mu ngi jàngat di def taxaw seetlu ci saar bii day di xool maanaa yi nekk ci qul huwallahu ahad day nee na xol boobu day xol mënu koo gën a màgg moom it te xol mbokk yi dafa am solo te alayhi salaatu wasalaam nee na benn suux la wala bu nekk ci doomu aadama boo xamante ni su baaxee lépp baax su baaxul dara du baax suñu bàyyi bu baax ba bàyyi ma tar sekk mbooro daan na ko naan nit ki sa xol say cër ñooy sa village waaye sa xol mooy sa chef de village waaw nit lu mu def rek xol baa ci joué xol baa ci joué boo tax yàlla ba muy wax naafiq yi dafa nii mooy ñi nga xam ni moom ñoom li ñuy def du am njariñ parce même bu ñuy julli sax wa ida qaamu ila lsalaati qaamu kusaala yurauna annaasa wala yadkuruna allaha illa qalila nee na ñoom même bu ñuy julli sax dañuy tayal parce que seen xol moo nanguwul julli gii ñuy def waaye comme nit ñaa ngi fi bëgguñu ku leen ràññee ñu ne nañ julli rek loolu ba léegi day dal ay nit de ñoo xam ne fi ne soo toogee ñoom ci mbooloo ba julli jot nga wax sax julli dañ lay jéppi dañoo ëppal trop dimbali nit ñi ba ñu pare kooku kon su pexe amul ba muy julli dina julli malgré lui mais xol ba du ca ne mu ni nag xol boo xamante ni yaa ngi jàng suratul ixlaas di nga gis ku toog ci mbooloo ñu joxe dogul ixlaas gëmu ko gëmu ko maanaam moom bu koy waxit xol bi waxu ko ñenn sax far dañ ko lu sax wax mu ne nag maa ngi lay xamal ni la xol boo xamante ni day tudd saa su ne day jàng suratul ixlaas ba pare di ko jàngat di ko seetlu di xool maanaa yi nee na xol boobu de màgg na waaw waaw mu ne it nit koo xamante ni dafa bëgg saar bi wóolu li ci yàlla wax yépp nag te koy jëfee nit kooku de màgg na waaw nit koo xamante ni moom dafa ñeme suutul ixlaas lool lool nee na kooku de nit ku màgg la nit ku am maanaa la nit ku am faydaangoog suuratul ixlaas mu ne ñeenti aaya la waaye nee na ak matale ak matale laa ilaha illa allah ñeenti aayaam yi nee na boo ko jàngatee di nga xam ni mën nga ko firi at doo ci pare boo ko jàngatee bu baax a baax a baax ci al ijaaz wal ijaaz di muy lottale nit ñi ci nit ci suñu borom waxee dafa yéeme saar la boo xam ni dafa doy waar ci piréem ba si yéeme na nee na li ci nekk nee na day ci ah, <clears throat> bariwul de ci waxin waaye azimatul maani nee na maanaa yi dafa bari dafa am doole almabaani day qalila waaye almaani azima waaw waaw maanaay saar bi ak doole saar bi moom dafa màgg lool ba ma ne su ko natt nee na it bari ay secret lool saar bi secret yu garaaw dafa nekk ci biir saar bi moo tax mag ñi dañ ko fonkoon mag ñi daawuñu ko fooy de si lépp luñ la wax rek booleel la ci lixlaas luñ la wax rekk booleel la ci lixlaas waaw waaw mu ni nag daqiqatul asrar waaw nee na tënk na ba pare boole lépp luy pas-pas bu baax bu doomu aadama di am ak unicité de Dieu nee na da la koy indil kon nee na loolu nga xam ni mooy secret lislaam nee na saar bi da lay indil loolu lépp te ni nee na saar bi mooy xolub alquran lu mu ci jublu mooy li muy li muy représenté ci alquran moom benn saar bu ndaw bii de ci waxin bu ma nee ndaw mooy guddul ndax ñeenti aaya la te gis nga saar yu ko waaye li mu am ci ay maanaa ni mu amee doole li muy wane ci borom bi néew na nga dem ci saar bu la ko indile noonu surtout ixlaas nee na képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng nee na sa xol de nee na day laab jàng surtout ixlaas di ko rëkk qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad wala kufuwan ahad da gis boo ko yàggee di jàng ni muy laabale sab xol waaw day libéré yi sam xel ci lépp luy stress ak lépp luy njàqare ba li muy mujj def ci yow mooy yàlla mooy fees ci sa xol jëmmi yàlla ji melokaanu yàlla yi mooy fees ci sa xol dalay xëcc dindi la ci lépp loo xamante ni dalay sànq ak di la jëme fu bon da la fay jëlee jëmale ci ki nga xamante ni mooy alwaxidul ahad muy borom bi subhanahu wa taala loolu lépp saar bi da koy def muy suratul ixlaas ñi li ñu am ci ay njàqare li ñu am ci ay problème stress bu metti bi ñu nekkee nee na yooyu loolu lépp li la ci gën mën a dimbali pour mu deñ mooy taqoo ak suratul ixlaas ndax moom dalay déconnecté ci béréb connecté la ci réseau bu ëpp doole bi nga newoon yenn saa yi nga nekk ci benn réseau yi dem ba si gis ne bii amul doole nga bàyyi ko di dem ci beneen mooy da ngaa déconnecté wu ci réseau bii nga ne woon di dem ci beneen waaye na fekk ni ba ngay dem na gën bi nga jóge maa nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha loolu nag la qul huwallahu ahad di def ci dit da lay déconnecté ci benn réseau bu faible boo ne woon connecté la ci benn réseau boo xamante ni moom intensité am kenn ko natt wifi la boo xam ni wifi boo xam ni boo ci xësee ba dugg da nga yëg ni dafay gaaw lool te kat kenn sécuriser wu ko nag waaw te lu nit ñi bari bari bari du wàññi ci intensité gaawa maanaam intensité wifi bi dara du ci wàññeeku moom loolu la lay def moo li tax nu muy defee loolu mooy day jël sa xol rek yóbbu ko ci borom bi subhanahu wa taala ba dootoo gisati dootoo bëggati dara doot la safati ku dul borom bi subhanahu wa taala nee na sootul ixlaas bi day def loolu bu baax a baax ci doomu aadama waa léegi sootul ixlaas bi ak maanaa yu am doole yii ñu wax ci moom solo si nga xamante ni saar bi am na ko waa lan mooy sababu wàccuk saar bi lan moo xewoon ba tax saar bii wàcc di qul huwallahu ahad mu ni jële nañ ci tirmidi mu jële ci ubay alsaxaabiyul jalil mu ni yéefar yi dañoo ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko ñun dañu bëgg nga wax ñu sa yàlla ji nu mel ñun sa yàlla ji lañ bëggoon nga wax ñu ko ndax yow sa yàlla ji ci oor la wala ci xaalis la wala ci lal la jamaa la wala lan la ñun dañu bëgg a xam sa yàlla ji nga ñuy sonale yow Muhammad boobu ba léegi nga melal ñu ko ñu xam nan la sa yàlla jooju mel waaye gis nga dafa am yoo xam ne bu ñu ko laajee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ko dul bàyyi mu tontu moo koy wax li tontu directement am na yoo xam ne yenn saa yi dañ koy wax rek mu xam tontu bi tontu leen mais am na yoo xam ni yàlla rek moo ko ko mën a yenkiwal indi yow ni Jibril ni ko demal yóbbul ko lii mu wax ko gaa yi bu leen ko waxee dinañu weddam te dinañ noppi nee na bi loolu amee yàlla wàcce qul huwa allahu ahad waaw muy saar bi di suratul ixlaas boo demee ci albayhaqi nee na jëlee nañ ci abdullahi ibnu abbas mu ni yahud yi ñoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ca kaab ibnul ashraf yéefar boobu ak xoyey ibnu axtab yahud yooyu ñoom bokkoon nañ ci ñu doon yonent bi alayhi salatu wasalaam dañoo bëgg nga melal ñu yàlla ji nga ni moo la yónni yàlla wàccee qul huwa allahu ahad waaw ñooñu c'est des malhonnêtes intellect jubluwuñu woon ci laaj bi dara du dul kole yonent bi alayhi salaatu wasalaam motif laaj ko ngir daaneel ko ngir sonal ko yàlla ni ko kaay ma wax la tontu leen loo leen di tontu ne leen qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mu nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yóbbul leen loolu wax leen ni leen kooku mooy sa borom ba léegi ñëwaguma ci firi bi maa ngi ci saar beek solo ci si nekk maa ngi yem ak yéen ci li tax saar bi wàcc kon saar bi dafa ñëw indi information communication bu am doole mu tax communication lu ama ama am solo la moo tax du lu ñuy fowe nti bi alei salatu wasalaam yàlla ko mayoon mooy jawaamiul kalima waxam dafa comme dafa mënoon a moom sallallahu alayhi wa sallam su waxee ak yow di nga xam ni kii lim lay wax xam na ko bu baax a baax yàlla jox ko benn communication bu am doole ci mu war a leeral feeñal màggal kan mooy boroomam macha allah wane it mat gi borom bi mat ci lépp lu mën a doon ak li mu so soriloo nit ñi weddi borom bi subhanahu wa taala ak bokkaale yàlla ak lépp luy wàññeeku ñu xam ni loolu nekkul ci borom bi subhanahu wa taala loolu nag raddu fi'l la wala da leen a delloo kàddu wala jëfin seen wax yi ñu doon wax la def moom dafa réagir par rapport ak ñoom ni ñu agire kan mooy sa borom sa borom bi ñuy wax boobu ba léegi ñun xamuñu borom boobu nu mu mel ndax or la ndax jamaa la ndax lii la ndax lee la ñun loolu lañ bëggoon nga wax ñu ci ñu mën a xam borom bi subhanahu wa nag di ko wax loo xam ne su leen ko waxee dinañ xam ne mësuñu koo dégg ci kenn ku dul moom te insha allahu dootuñu ko déggit ci keneen ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam muy indi matuk yàlla gi waaw indil leen ko leeralal leen ko bu baax a baax ba ñu xam kan mooy seen borom ci saar bu ndaw bii te jamono yooyu ñoom ñu ngi doon bokkaale yàlla di am yeneen mbir ñu ñu jàpp ni yàlla wa zannu billahi zanna saw daan melal yàlla dudul dëgg ba pare non seulement loolu di ko utal ay doom <coughs> ñi naan Uzayru doomam la ñi naan almasih doomam la ñi naan malaaka yi ñooy banaatullahi ñooy doomu yàlla yi maanaam yàlla daf ko bëgg rek la waale ci benn saar bii kon xam ngeen ni saar boobu rëy na yàlla liñ ko wax lépp mu war koo régler ci benn saar muy qul huwa allahu ahad loolu dafa am lu muy tegtale waaw loolu li muy tegtale mooy saar bi bu gàtteet boo ko gëstoo ni nga ko war a gëstoo te yàlla dafa bëgg loolu afala yatadabbaruuna alquran yàlla ngi wax ci alquran nag xanaa gars yi ñoom dandul dul dan dul settantal alquran xanaa du ñu jàngat alquran di seetlu li ci borom bi subhanahu wa wax ak ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee xanaa ñoom du ñu jàngat xanaa ñoom du ñu jàngat loolu suñ ko doon jàngat dinañ xam ni alquran ji waxu borom bi subhanahu wa waaye bu ñu jàngatee qul huwallahu ahad dañ xam ni yemul ak dara yahud yi nag ñoom comme ñoom dañoo amoon dañu doon jàpp ni Uzayr mi nga xamante ni moom la yàlla wàccee ci moom aw kalladi marra ala qaryatin wa hiya xaawiyatan ala urushiha qaala annaa yuxyi hadihi llahu bada mawtiha fa amaatahu llahu miata aamin summa baasahu qaala kam labis boobu nekk ci sutul baqara Uzayr moomu ñoom dañoo dem ba jàppe woon ko yàlla jàppe ko doomu yàlla almasih di isa moom it nasaraan yi jàppe ko doomu yàlla yàlla na xamal leen nii wax dëgg yàlla man du ma du ma bàyyu kenn waaye kenn du sama bàyyi du ma ndeyu kenn waaye kenn du sama ndey du ma frère kenn waaye kenn du sama sœur bokkuma kenn kenn bokkul ak man yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li muy foor ci moom yëpp teel na koo xamal ni ko man maay ahad yow yaay ahmad miim googu dugg sa tur nag mooy wane ni bis dina ñëw almawtu ganesi la te ba muy dund la ko wax ni ko innaka mayitun wa innahum mayituuna thumma innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuun xamal ko ni ko yàgg yàgg yàgg lu mu yàgg yàgg bis dina ñëw nga faatu moom loolu moom na la leer bis dina ñëw nga faatu ñoom dinañ faatu waaye di ngeen régler lépp ëllëg ci si kanamu borom bi subhanahu wa foofu la leen di régler kon yàlla dafa bëgg ñu xam ni moom bokk la kenn waaw du Uzair du almasih du Seydina Muhammad du yent yàlla Ibrahim du yent yàlla Adama du Noox du Saalix du kenn du Yuusuf du kenn du Muusa amul kenn ku mu bokkal moom yàlla moo tax toujours mu koy insisté naan yonent bi qul huwa allahu ahad waaw waaw saxalal bu baax kenn yàlla gi unicité da Dieu nang ko saxal ci sa kàddu ba ñu xam ne yàlla dong moo fi ne ak wéet gi mu wéet ci doon yàlla subhanahu wa ak ni mu ñàkk a mën a jëfandikoo li nit ñi jëfandikoo ndax moom du nit ñi nit ñi duñu moom moom borom bi subhanahu wa taala léegi nga xool baat bi mu utilisé qul huwa allahu ahad al ahad mbokk yi nañ ko jël ba léegi ñëwaguñu nag ci pirim saar bi mu ni benn tur la boo xamante ni ki ko tudd dafa wéetoo lépp ci melokaan ci comportement ci ay jikko ci ay lépp loolu ay waxam ay jëfam kenn ko mel ni moom amu fi danga daan dégg fii ci publicité yi am na benn ci yiñ daan publicité ci meew yi dañ daan wax naan benn la fi man waa juumu leen de benn la fi ngeen mën a wax de waaye mënu leen wax kenn la fi ndax kenn moom borom bi subhaanahu wa kepp képp kott rekk kese dong mooy doon kenn moo tax al ahadu lay tudd waaye du tudd al waahidu waaw waaw moom utilisé wul al waahid moo tax al ci turu yàlla yi maanaam bu ko woowee ahad ci téere bi yëpp ci saar bi rek nga nga koy fekk ahadun waxuma baatu ahad bu ñëw ci al quran ndax gis nga ko qul law kaana al-bahru midaadan li kalimaati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu walaw ji'na bi-mislihi qul innamaa ana basharun mislukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falya'mal 'amalan saalihan wa bi 'ibaadati rabbihi ahadan boobu gisaan nga koy ci yeneen saar boo demee ci suuratul jinn li nga fa dégg baatu ahad waaye baatu ahad boo xamante ni li muy tegtale mooy kennuk yàlla gi ma ni ci alquran yëpp ci saar bii rek nga koy fekk muy suuratul ixlaas ñu jël ahad mu askane la ko borom bi mu ni qul huwa allahu ahad kon day wane wéetug yàlla ci ay jëfam wéetug yàlla ci ay waxam wéetug yàlla ci ni mu doone yàlla ci kaw jaam yi waaye mooy allahu waaye mooy as-samad boobu yi dafa am maanaa lool te jar a xel ci biir saar bi nga koy fekkaat mu ni mooy moom yàlla moo mat ci lépp soxlawul kenn te ñëpp soxla ko ndeysaan Abdullahi ibnu Abbas wax na ko nee na mooy sang bi nga xamante ni moo wéet ci sangam ca nga mooy ku màgg ki nga xam ni moo wéet ci màggam nga mooy ku tedd ki nga xamante ni moo wéet ci xeetu tedd yëpp ak xeetu cang yëpp kooku mooy borom bi subhanahu wa taala keneen mënula am loolu boo demee ba tey borom xam-xam yi nii la assamadu mooy ki taxaw ci mbir ñëpp te doyloo ci mbir ñëpp loolu mooy lan moom yàlla moo taxaw ci mbirum ñëpp ñëpp ñëpp mooy faj seen soxla allahu akbar yàlla li mu yonu diis na moom yàlla mooy faj soxla ñëpp te kenn du faj soxlaam moom borom bi subhanahu wa bu ñëpp jaaxlee moom rek la ju jublu waaye moom jubluwul kenn te it kenn amul benn njariñ boo ko amal te njariñu nit ñëpp ci moom dong la nekk moom borom bi subhanahu wa taala mbokki jullit yi seen saat de jeexul di sotul ixlaas ci présentation bi te dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci ngëneel yi bala ñu leen di firil saar bi ñu leen wax loo baree baree baree baree yàlla xam ne du sax jeex ci ñett ñetti tafsir yi du sax jeex waaye lu ñu ci am rek doyloo ko macha allah te xam ni màndik lem la saar bi foo ci laal rek mu gën a neex yàlla na yàlla defal dëgg ak topp teg leen foofu seen baaraam su ñëwee ba léegi continuer ci ngëneel ak soleil saar bi di suratul ixlaas yàlla na yàlla defal dëgg ak topp aqulu li hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh